voilà ngeen voyage yu métti merci asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak kontante jàkkaarloo waat ak yéen euh, bu ngeen seetaanee vidéo yi jàll ci écran bi nag euh, ki jàll mooy Fambaye euh, ñu fàttali leen nag ne Fambaye feebar bi daf ko gën a sonal ndax bu ñu seetaanee vidéo bi nga xam ne suñu naataango yi ñoo ko génne Seneweb boo ko gisee sax dafa tëddaat ndeysaan mënatul dara boo gën boo déggee ci micro bi sax nga gis ne mi ngi nooyi nooyi boo xam ne kii ku ko xool xam ne euh, état de santé am wax dëgg yàlla euh, ku aaji dimbal la. garaaw am na sax fee ca Italie euh, benn hôpital boo xam ne mën nañu nee ñoom bu ñu ñëwee mën na koo faj en fait mën nañ ko jël en charge mais problème bi mooy lu koy yóbbu ba foofu parce que moom pour mu dem ba Italie il faut mu jël avion boo xam ne moom kese moo ciy nekk. donc am na benn sit boo xam ne koppar la tudd mi ngi mi ngi ci dinañ ko def ci suuf écran bi képp koo xam ne bëgg nga ko dimbale mën nga jaar foofu ba dimbale ko te yàlla rek tax parce que moom il faut que ndax pour ñu évacuer ko ku xool jëmmam ni mu toll ak ni ko yàlla sama borom tegee natt bi di nga xam ne moom mënul dugg ci avion yi nii donc foog mu jël avion boo xam ne spécial lay doon pour moom donc ñu dimbale ko mu dem faju bi te yàlla rek tax yàlla na yàlla sama borom ñu naan dégg topp yàlla ñu ko yàlla sama borom defal ñu jàppale ko te yàlla rek tax. Euh, aussi tamit mi ngi wax ne Wally Seck frère am la daf ko jàppee comme ku mbokkal ndey ak baay ba ñëw na sax seet si ko nee na Wally sax bi mu ko ñëwee ndeysaan seet si ko xol bi dafa tooy ba dafa jooy ba moom sax bi Wally ñibbee dafa jooy ndax yërmande ju Wally am ci moom ba Wally nee woon dinaa la may 15 millions yoo xam dama la koy dimbalee moom sax moo ne 15 millions yi bëgg ko xoolaal ndax li koy faj ëpp na 15 millions comme 100 koy faj te bu jëlee 15 millions yi mën na ko ci leneen xëy na ni mu waxee moo tax mu tegal ni ko fa 15 yi xëy na pour bëgg leneen ñu ci dolli pour mën a faju képp koo xam daal mën nga koo dimbale te yàlla tax am nga ay ay ay ay taxawaay ndax wax dëgg yàlla jigéen la te jigéen moo ñu jur te képp ko eh, jàppale jigéen rek soit jàppale nga sa sœur wala sa yaay wala dimbal loo xamante ni mën nga ci am yàlla suñu borom. Euh, ñi ngi ciy sant aussi Mamy Cruz nga xam ne moom tamit am na ci ay taxawaay yu am solo euh, depuis femme yu tëdd feebar ba léegi saa su ne mi képp koo xam ne jàpp na ne war nga mën a jàppale Fa mbay mi ngi lay woo am ci ay taxawaay ñun sax am na information yoo xam ne yu baree bari ci moom la ñu koy ci moom la koy jotee donc moom boobu ba léegi tax toogul benn yoon chaque fois mi ngi jóg di wootee xam nga di di di ñaan kum yaakaar ne aussi ku mën a ku mën a koo mën a ñaanal nga tamit jóg na dem wuti fa ñaan renk ngir Fa Mbaye jóg moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm euh, may ñaan rek képp koo xamante ne seetaan nga vidéo bi nga ñaanal ko d'abord feebar yàlla moo ne dangeen ngeen jàpp ne du leen fi indi te du ma leen teg ay natt te feebar dafa bokk ci natt suñu borom li koy teggil ab ab ab jaam rek bokk na ci eh, yàlla sama borom ñu ñaanal ki nga xam ne moom la daal mu teggil ko waaye ndimbal da ciy baax ndax eh, bu ngeen fàttalikoo bu ngeen fàttalikoo bu yàggul dara rek da ngeen doon dégg sëñ Baara Mbàkke dégg naa am nañu mas a ñëw ci moom ne ko dañoo ay bourse ay ay ay ay étudiant mu ne bourse desu ko desu ko ñaan waay desu ko ñaan waay donc xool ci tolluwaay boobu daal di woo ministre bi yoroon affaire bourse yi ne ko ñii sama njaboot lañu waa bëgg nga topp tool leen bourse yi ñu soxla li ma bëgg a jàngale foofu rek mooy Fa Mbaye mi nga xam ne dafa feebar nañ ko jàppale nañ ko dimbale ndax yeyoon na ko te aajo woon na dimbal instant bi xawoon na ay jamono sax mu ne woon xaw ñu doon dégg xawoon na tane xawut a tane mais fi ne nii moom dafa gën a graaw donc ñu dimbale ko mu dem faju ji te